ba yàlla def ba ma agsi fi ma agsi kon wax dëgg yàlla lam ko waxe woon sam papa def na ko ci man ba mu mat sëkk ma fàtte mukk mu wax ni que nan la tudd sam papa daaw ma wooye ma dikkee Malick la ma daan wooye mi ni que Malick tudd kon moom léppam diine la mu wax ni que ma demb ba soo ma joxee ku tudd Malick ñu ñu bokk si ngiiru Malick kon de yaa may gën ñeex si li ma nekk ma sant bu baax nag yàlla di def ñuy àndandoo ma yëg sama bopp taxawaayam ma yëg sama bopp ni ma yàlla di defale ay yiw ak xéewal bi ma demee ba ak si université lu ma am nag si diplôme maa ngi si loxoom certificat brevet entrée en sixième loolu tudd rek luy waay lu man tax waay jëm kanam booba man ak moom si loxoom laa ko amee bi ma demee ba iniwersité yàlla def ma jot sama bourse bourse bi ma jëkk jot fekk na booba xam naa ni seet naa ko si lépp nag ma xam ni kiin ma booleel mooy ki ma doy kiin ma booleel mooy ki ma mat dëgg-dëgg sëriñ ma jóge dakaar li ma jëkk am ci bourse ma ñëw ba fii fekk ni ka dan ma daan jox li ma indi tey lii maa ko moomal sama bopp dan ma la jébbaloon tey damay jébbalu si natt naa ba nga doy ma sëkk ba nga mat ma sëriñ sëkk dama fas yéene jox la sama bopp ma ni ko dan ma doon wax ni ma kat wax ka ni ko dénk naa la sama bopp àddina ak alaaxira tey nag kenn du ma ko wax maa koy waxal sama bopp ni ko dénk naa la sama bopp àddina ak alaaxira man benn yoon laa mës jébbalu mooy sa kanamam nii ku nekk yàlla boole na ma ak moom ñu teg ma fan ma war teg bëgg ma ngir sëñ Tuubaa waaye benn yoon laa mos jébbalu mooy si moom mii wax naa ko ni ka am naa yàqiinu ni ngay yéwane samay mbir foo toll yàqin boobu àgg na ba yenn saa sax samay mbir duma la ko jottali waaye sama xel su demee si yow rekk ni de ah sëñ Moustapha su yëgee sama mbir mii mu yëwan de mbir ma yëwoon si saa si yàlla defal na ma loolu si moom moo taxit dama ko jox sama bopp ba mu jeex tàkk te fu ma toll damay laxasu waat yeesal sama laxasaay gën doon taalibeem aw ma fayam addina bi yëpp xam na nan la mel si man waaye nag addina bi yëpp xam na ni moo nekk moom mooy ki nga xam ni moo tax kenn mënul ma kenn gis ma dikka dikka ree déedéet ñeewuma kenn dax moom moom daf ma jàngal ni ma cant bala moo wóor ki kiy sant dafay wax ba noo defa ni dafay dafa day damu te jublu si dul sant damuma de waxaloon nga ma sax sa bopp ni ma sëñ bu mag benn ko jëkk jàngal bi moo sant boromam di wax ilaahi xaadalaahu maa lam yëkkuni wala yëkkuni abadan li mun ni ñu bëri lu defoon sëñ bi day damm te sëñ bi weesu na damm weesu na damm waaye booba cant gu wóor la doon feeñal digganteem ak boroomam ma ni cant gu wóor si doon taalibe sëñ Tuubaa moom laay feeñal sama diggante ak moom diiru ñu ànd bés bi nekk sama gëm ak sama pësteef day gën yokk jëm si moom kon danoo ñaan rek mu yàgg fi loolu te man de bëri na du wax sama julli juróom yëpp waaye de bëri na bés bu nekk xaw ma ñaata yoon laa koy ñaanal mu yàgg fi te ndax kat yàggam mooy sama njariñ léegi lay wax ni ñeewuma kenn waaye kenn mësuma tëkku kenn mësuma tëkku ba jot si man déedéet kenn mësuma tëkku ba jot si man kenn mësuma tëkku ba jot si man ndax kan dama am ku may yiir dama am ku may taxaw dama am koo xam ni sama lépp laa ko bàyyeel mu téyal ma ko ba mu mat sëkk doon naa wax fii bi nga xamee ni damay samp sama ndënd ni damay doon candidat wax naa ko ni que bu jëkk kat dañ ma doon wax ni Madické bokk na si ñi nga xam ni ëllëg gouvernement Macky Sall mën na dal seen kaw loolu di dem di dem ba mu mujj ni damay laaj réew mi xam nga ni ko kat kenn dalatul si am waaw may xëccandoog moom réew mi yàlla jox ko ko waaye ba ko yàlla joxee sa ëllëg sa mu Mountakha tappal ma grade boo xam ni moom mii moo tax ma am ko moom mii moo tax ma am ko mu tappal ma garaad boo xam ne ni ni ma li nga am moo gën jiite àddina bi yépp kon moom mii moo ma fàggul loolu sëñ Muntaxa wax te moo sëriñ Touba su ma ñëwul woon tàllal ko sama loxo mu ñaanal ma ba mu dugg si euh, si ba ma dugg si élection yooyu loolu duma ko dégg kon sa kanam gii laa lay sant Mbàkke ñu ngi sant bu baax waaye di dellu di ñaan nga yàgg fi loolu te te di ko jëmbale nag si Cheikh Muntaxa xam naa fan la la teg xam naa seen diggante bu baax xam na ku fi toogal sëñ Tuubaa rek am na fu la teg sëñ Saaliwu la jëkke sëñ Saaliwu bari na lu moo def lu fii si kër gi dafay wax demal leen ma sëñ Moustapha man fu ma sukk si moom min ma a ah, jaar nga sëñ Moustapha ana sëñ Moustapha sëñ Cheikh Sidi maxtar fii la dajale ay wëliis yoo xam ni ay yëre la def ay parfum ay dàll indil la ko fii te daf ma daan wax ni ma sëñ Moustapha su neex yàlla dana ñibbisi daanu toogandoo fii si Touba ni ma dana ñibbisi toogandoo fii si Touba ndax moom kat dafa mënul ñàkk si yoon wi ndax taxawaayam ni ma kat man nag sama moroom xamul si moom lu dul ñaari yëf mooy jaamu yàlla liggéey sëñ sëñ Cheikh Sidi Makhtar moo ma ko wax tam nga sëngee jël yàlla kon sant nañu bu baax ku fi mas toogal Cheikh Massamba rek am nga ngërëmam la ko doori sëñ du May ba sëñ Abdou Baax kon tey ngay Cheikh Massamba mat ka sëkk nag te feeñ na si lépp nag doo woote mukk ñu dimbali la si lenn yow kay da ngay dugal sa loxo nit ñi di daw di la dabi te kenn mënu la dab te feeñ na si daaru kërim gi feeñ na ci liggéey yu bari kon kat yàlla defal nanu kat ñu am sëriñ boo xam ni mën nañ ko tiituroo fépp si àddina bi damay wax ni man li gën a cher si àddina suñu waxee ni jamaa la mën sëñ Tuubaa weesu na jamaa waaye nag suñu sañoon njaboot sëñ Tuubaa yépp suñ jamaa di nuru nuru nuru di rey rey yi ba nuru jamaa waaye moom jamaa la kon Mbàkke ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ku ma am rek xam nga ni man sama biir xol bii nga nekk weesu nga sax doon sama sëriñ dax bi sama papa làqoo liggéey dama ñëw ni la kat yamatuma si jébbalu si yow waaye dama jël njuréel gi jox la ko waaw dama bëgg nga doon sama waajur dama bëgg nga doon sama sëriñ doon sama waajur nga nangul ma ko te nga mat ko sëkk li bala noo jeexal rekk Mbàkke danoo jëmale ay kàddu si borom bés bi te borom bés bi kat dañ si seddu ba àddina bi yëpp xam ni seddu nga si àddina bi yëpp xam ni ma sàmb gu mat sëkk nga Cheikh Massamba cëram àddina bi yëpp xam nañ ko ku dëkkandoog sëñ Touba ku sëñ Touba wax ni toogal fii lu ñëw ñu bokk sëñ si boppam moom moo tànn tànn gu mu nga tànn moo tax mu mën jël jële loxo soxna Issa tey maa ngi song bërëbam bi di ko defaral ba sant ak Cheikh Massamba liggéey ba tàmbali na liggéey ba tàmbali na ndax soxna isa dañoo amul fayam moo nu indil Cheikh ma Cheikh seetal li daal soxna si kenn mësul gis soxna soo xam ni buur moo ko yor ñu wax ka ni kat bàyyil sa bàyyil sa borom kër gi nga xam ni mooy buur nga dem si sëriñ sëñ Tuubaa rekk ka am kenn mësul gis ci àddina bi koo xam ni dangay am fitu ni buur bàyyil sa soxna si ma jox ko sa waajur loolu la def jël soxna Isa si Lat Joor indi ko jox ko Mamor Anta Sali Mamor Anta mu am si ma sàmba kon Cheikh Massamba Serigne Touba moom moo ko ñaan boroomam mu wàcc si àddina ndax xam na ni kat li mu bëgg si xasaay yi ak li mu bëgg si àndandoo ma sàmba rekk ka man mat waaw kon lu mu ñaan boroomam la mu jaar si soxna su sell soosu soxna Isa ñëw si ay loxoom mat ka sëkk na moom bëggul woon ku dul sëñ Touba xeeñtuwul woon ku dul sëñ Touba bëggul woon ku dul sëñ Touba kon nag ñu ñee taalibe ma sàmba wax nañu xam ni seddu nañu fu rëy ñu fonk sunu cër taxawu ko sunu kemtulaay kàttan ndaxte li may teerale wax ji mooy maa ngi dellu di la joxaat sama bopp jàppal ni kat gëm-gëma gëmoon tey la rawati jàppal ni kat sama àddina bi ñaar yii duma dal kenn duma gis mukk ma beew ndax kat lu ma am la nekk xam naa ni Mbàkke yaa ma ko fàggul lu ma waaye gërëme ma ni ko sëñ Moustapha ma ko fàggul kenn duma gis mukk ma saali ndax àddina bi gisuma lenn loo xam ni Mbàkke na ma tax saali ndax jafe-jafe bu ñëw nga faxasal ma ko indil ma ay xéewal kon maa ngi sant bu baax kàddu yi du dara dul kàddu sant te gëm naa ni sama cant gi dana doon si man dolleeku goo xam ne àddina bi yëpp daan ko def ndax kat yaa ma wax ni ma te sant mu dolli la ko cant bala moo cant moo am solo kiy cant daf koy def na mu gën kawee ba ñëpp dafa ne day damu te jublu si dul sant maa ngi lay sant sama kent lay kàttan Mbàkke yàgg fi lool loolu loolu tey loolu tey su bés bii nga xam ni sag gi nga sagal Cheikh sàmb loolu la ñu jëkk tàbbi si loxo Cheikh Massamba mu tàbbi nu ko si loxo Sëñ Tuubaa mu jottali nu ko Rasulullaay sunu borom defal la nga yàgg fi loolu te wér mi ngi ziyaar bu baax mi ngi ziyaar bu baax jërëjëf Mbàkke